Amady bajaan dangaa cuune dëgg dëgg dëgg dangaa cuune waaw xam nga lu tax nga cuune yow dangaa liggéey ñaata at biir Ramadan ñaata at ba tey fi nga yegg si fii tey nga ñëw daanu daanu bu bon bu salte te waroo koo def loo leen wax xale bu góor boobu tooñ ko nu mu tudd sax euh, xale bu góor bu tuuti bi tur bi fàtte dama ne looluñ ko wax dangeen koy tooñ ki cuune dëgg dëgg dëgg Amady Badiane la waaw Amady Badiane moom ci boppam moo cuune ndax Amady Badiane doo def li nga xamante ne moom la Sénégal njaay bi yépp naw la nga ñëw yàq ko ci benn fraction ci benn lu ndaw lu gàtt li nga xamante ne amul bopp amul genn yow waroon ngaaw am leen noo doxalee nu dul nii te yow xam nga ki nga amal affaire tey nga dem ba defante appel waa léegi nag yow aw tooñoo kenn de yaa tooñ sa bopp trahiroo kenn de yaa trahir sa bopp gis nga Amady Badiane yow danga ne Wally sekk sa doomu ndey la Wally sekk mu ne Amady Badiane sama doomu ndey la dama ne lu tilim ci kër gi ci biir kër gi lañ koy fóote yow am nga accès si Wally sekk ba loo ko bëgg a wax danga koy wax keroog Wally sekk bi muy woo njàpp la xam lu mu doon c'est devant toi bu nekkoon ci te vraiment sincère te yow li ngay wax dëgg na ci yow te xam nga ne carrément après dara du la ci fekk nit ki da ngay wax sa digganteeg suñu borom neel Wally Seck xale bii duma ko bàyyi mu fecc fii nit da ngay nit da ngay dëggu waaye naan dañ may jaxaseeg sénégalais yi dañ may li kenn du la jaxaseeg sénégalais yi ndax xale bu góor bi muy njàpp moom moo la gën a xam ne li mu def affaire trahison la li mu def njàpp trahison la moom moo trahir Siri Diop ñëw ci kër Waly sekk jaxase ko ba mu jaxasoo rip moom ak Aïda Bandaya dama ne ñoom ñaar ñoo ñëw kër Waly sekk ñoo ko jaxase wax ci nag dañ koy téegal mu téegu rek mu jeex tàkk jeex na loo wax xale bu góor bu sew bi da ngeen koy tooñ bu tuuti bi loo leen ko wax da ngeen koy tooñaa ah, moom deful dara de deful dara parce que ñëpp xam nañ lay métier am ñëpp xam nañ lay liggéeyam waa léegi nag yéen lu tax ngeen bëgg a tooñ xale bu góor bi xale bu góor bi dara de ki woyee di dëgg ki woyee di dëgg kenn ñaar nit rek la muy kan ki nga xamante ne mooy Amary Badiane ak si ak uh, ak beneen xale bu góor bi beneen beneen waa ji Sidi la xamu nu xamu nu mu tudd waajoo noonu ki mujjee woo ñoom ñaar ñoo woyee ji ki tes carte gi nag njàpp la ak uh, uh, Aïda Badiane xam nga Aïda Badiane la xam nga aw aw aw xam nga xam nga Ami Fatou Banaya xam nga Khady Banaya xam nu mu tudd sax voilà ñoom ñoo woyee del gis nga ki nga xamante ne mooy sama fansa sa di sama xarit ah, ah, ah, ki awa wax dëgg yàlla ñëpp xame nañ ko ci régler tee dal waaye si nga ñaar ñi njàpp la ak euh, euh, keneen ka ñoom ñaar ñoo tas kër gi ñoo ko tas nañ ko wax rek te dee ñoom ñoo tas kër gi ñoo ko tas wax dëgg fa yàlla du kenn nag ba Badiane rek dangaa woyati waaw dangaa woyati man dama laa mës a xam ci régler tey dal ci loolu laa la xamee nga nekk ci Papa Thione di fecc fecc nga clip ku nekk wooy fecc nga ak moom yëpp sama kanam la nag lépp sama kanam musuma la xamee si lu ñàkk fayda waaye tey dangaa woyee di ndax boo amee loo wax Wally Seck woo ko am nga accès am nga accès si moom dal ci kawam nu mu la neexee xamal ne ko booy lii ak lii ak lii du mënul nekk xale bi bu ñëwee fi kër gi dina tas dugg ne fi gën wax ko sa fulla wax ko sa fayda waaye nga toog tey di woote téléphone te xam nga gën ki ngay woo dina la enregistré yaa ko gën a tey yaa gën a tey na ki ngay woo dina la enregistré ndax moom léppam dafa koy teg ci kaw yoon léppam preuve la koy def donc nag kenn tooñul ko kenn tooñu leen yaa tooñ sa bopp loo leen wax xale bu góor bee nag da ngeen koy tooñ Amady Badiane mooy ndeyu mbill gi nañ ko wax te dee